bokk yi ñu suivi ci Equivox TV defe naa ne bu ngeen gisee image yooyu defe naa ne image la yu nga xam ne euh, maanaam image kuy liggéey la nekk di liggéey si place am image yi ak ko gis di nga xam ne fekkuñu fi mburu waaye fu ñuy defara mburu la muy boulangerie boulangerie bi nag ki ko yore moom lañ jàkkaarloo nii muy Ablaye Diop bu ñu nee Ablaye job nag si lamb defe naa ne ñëpp ñu suivre lamb xam nañ ko rawatina ñuy suivre lamb simple muy sum production mu ci def ay mise yu ama am solo di doomu sum yaa ngi dégg amee structure am di tëgg ay làmb samedi ji nu jëm di la 4 mu war a tëgg benn miss fii ci Adrien Senghor teg fa 1 million ak benn moto loolu bokk na ci lax tey ñu seet si ko parce que comme li may wax rek Babacar moom ñëpp la fi nekkal bu ñu sañoon képp ku ne ci làmb di yëngatu nañu dékk micro te moom mi da ciy bay waaram Ablaye maa ngi lay ziar. Eh, Babacar maa ngi leen di delloo ziar bu baax di leen jaajëfal di rafetlu déplacement bi ngeen def ba fi fekki si ñu wax dëgg lu trop. lii nag du mbetteel ci ñun Babacar yaa ngi bugg a yàgg ak ñun e, su ma juumut su ma waxee dëgg rek te yàlla tax suñu promotion ci làmb def nga ci jéego yu yaatu macha allah ñu la ciy remercier di la jaajëfal bu baax mu doon loo xamante ne waroon nañ mun a def déplacement bi joxe ci xaalis bu bari doog ko mun a am dañu koy defal gratuitement kon macha allah ñu ngi lay jaajëfal di ko rafetlu bu baax a baax a baax. waaw loolu moom suñu liggéey lañu def parce que defe naa ne ku nekk ci benn bi di ko di ca yëngatu ñun tamit lu ñu mën a pousse pour mu avancer dañ koy def euh, mais bu ñu nee Ablaye Diop sum production kan mooy Ablaye Diop sum production maa ngi naan léegi sum nga dëkk sax man naa ma jum wala ma ñàkk a jum mais bëggoon naa nga wax Sénégalais kan mooy Ablaye Diop sum production lu ko dugal ci làmb eh, Babacar Ablaye Diop sum production boo ko déggee maa ngi juddoo ci benn dëkk bu ñuy wax sum sum nekk ci département Foundiougne région de Fatick benn sum boobu la mais bokk na ci dëkk bi nga xamante ne boo toogee fi di lim ay champion yu fa jógee bari nañ torop en commençant par Bounama Diom Basirou Sarr Adoline Diasse ba Madou Yaay Moussa Adam Iliman ak bato Sénégal ainsi de suite daal bari nañ torop kon dëkk boobu boo fa juddee buggu lam warta mun a bett kenn macha allah foofu nga juddoo foofu moom mbër yooyu nga tudd yëpp dafa naa ne dégg nañ seen ay tur am na ci ñoo xam ne sa jot nañ leen a xam euh, mu mel ni kon foofu euh, maanaam làmb moom dafa am baas parce que ñi nga limb bari nañ trop macha allah. te muy dëgg Babacar làmb suñu côté yooyu par exemple li yi di fooyee fubal nii ayoor ñun làmb rek la ñuy fooyee moom la xam poids boo soxla ci làmb catégorie boo soxla ci làmb boo duggee au niveau du log nga am ko. pour ne pas dire sum uniquement. Ah, loolu ci suñu cosaan la bokk. loog dëkk la wala loog lan la. loog mooy benn gox la. benn gox la bi nekk au niveau de Foundiougne parce que ci biir loog suum rek commune la. le reste di loog itam commune la. muy Thiaré loog Mbam loog Mbassis loog Kër Sambawane ak Saab ak Ndorong loog waaw. macha allah defe naa loolu leer na nañ mais kan mooy ab Ablaye Diop Ablaye Diop ndax. Euh, lu ko dugal ci làmb daf doon bëree wala lay dafa xëy xëy nekk doomu séréer comme noonu nga juddoo foofu màggee ci làmb ji xëy xëy nekk promoteur lan la eh, Babacar foofu ci gàttal dëkk ba la cosaan bi ci gox bi munuñ laa limal leneen lu dul làmb làmb munuñ laa limal leneen lu dul làmb ci activité sportive bi ñuy bu mun a dominer foofu suñu zone boobu làmb kese la ba ñuy xale ba léegi moom la ñuy fooyee donte nag yëngatiwuñ ñu ca fa mu amee njëriñ mais à base loolu rek lañ doon fooye da nga jot a bëre non daanoon naa ko fooye nii rek mais li tax ñuy naan nit bëre na defuma loolu ay lamb IAS yi lamb école des choses comme ça mais fi lamb amee njëriñ moom fooyewuma ko euh, yéen léegi ne nga lamb IAS yi lamb école da nga jàng école effectivement Babacar jàng ban niveau niveau troisième Ablaye da doon ànd ak ay mbër wala. ay mbër nag euh, bari naa relation ak mbër yi mais pas ànd ak ñoom dem ci géew bi hmm. waaw mais nag seen wàccaay et tout ça ak amitié bi avant làmb ji dama koy dund ak mbër yu bari sax mais nag pas accompagner mbër ñu dem ca làng ja hmm. waaw. ñoo ci gën a jàpp seen tur ñoo xam ne ba tey yaa ngi am ak ñoom ay relation yu yu dëgër yu leer. foofu moom euh, Babacar du ma dem plus muy aadama Diouf. seen naa ko fi moom moom de gis naa ko fi sax fekk naa ko fii moom daa mel ni foo laalee Ablaye seen fa Adama. muy li ma la waxoon ay jamono rek Babacar dama laa woon boo ma soxlaa ñu ne la Adama Diouf a ngi bërëb sangam jaratul nga may woo téléphone. nekkul ne dama ko pour mu ñëw teewe def ci daanu par hasard rek ma ne ko pour pourtant maa ngi dégganteeg Babacar nee na def fii jaar nii lañ jëkkee ma ak moom macha allah. te écrit ba mu yore defe naa yaay président ba Mamindis. Euh, écrit ba man maay très comment dirais je euh, secrétaire général bi macha allah waaw. kon mu mel ni relation bi ak mbër yi yàgg na mais li nga xam ne gis nañ ko ci image tamit mooy dañ la fekk ci sa palaasu liggéeyukaay gis nañ la ci sa biir fi ngay liggéeyee mel ni fii boulangerie la nekk ci Grand Yoff boulangerie ba Kër Bamba ñu fekk la ci sa tani yaa ngi ñaq nii mu mel ni kon Ablaye Diop tamit donte mu ngi sum production di tëgg ay làmb di génne xaalis bi di def mais yore na métier di liggéey muy becc boulanger. Mm-hmm. Babacar foofu li ma la ciy dollil mooy làmb ji xëy na deret bi la rek ak bëgg-bëgg bi bëgg nañ ko trop mais neew na lu ñu war a mun a jëlee ci làmb pour def ko suñu bopp au contraire coow li rek lañ ci amee dañuy jël suñu xaalis personnel bu jógewul ci làmb après événement ñu ñëw dolliwaat ko ci événement bi ndax làmb tollu nañu foo xamante ne ci organisation lépp luñ ci def pour mu yemb rek dañ koy xep ba tax na dépense yi avant ak après làmb ji dara du des ci làmb ji làmb ji moom je diir loolu xaw ma ban cofeel gi daal moo ñu ci bàyyi rek mais pas wutukaayu xaalis wax dëgg yàlla. mais ci côté liggéey bi Ablaye daa jàng boulanger ba man ko fu mu ko jàngee Ablaye ndax fi mu boulanger bi ñu ko fekk moo ko moom wala da koo gérer wala employé kese kese la fi buy lakk mburu dem ñibbiwaat. Babacar euh, boulangerie bi ci samay responsabilité la ne métier boulangerie nag pour mu gàtt rek dara réeruma ci dara réeruma ci tooguma fii ci bureau bi rek pour toog di rek régler des détails comme sax non non def may neex léegi ma nekk Anthony wàcc nekk ak ñoom ci atelier bi. kon mburu xam nga ko bu baax de. xam naa ko bu baax Babacar. <laughs> réeru la ci mburu dara réeru ci mburu dama cee yàgg nag Babacar plus de vingt ans. yaa ci mburu maa ngi ci mburu. fii ma nekk nii sur place. bi may jàng. daan lu woon nekk su ma jàngi jee wàcc rek dem defi leneen. Mhm. su ma jàngiwul maa ngi ci fuur bi. Mhm. su ma demee jàngi ba wàcc maa ci fuur bi. Mhm. moo tax bi ma demee ba yitewoo ko. presque ay dossier complémentaire la woon rek mais booba notion yu bari mu ngi woon ci man. macha allah macha euh, responsable nga fi nee nga yaay cotisé euh, euh, kon est-ce que Ablaye lii këram la wala. <laughs> non <laughs> moomu ma kër gi gaa mais li tax ñuy wax four bi ci boppam actuellement boulangerie bi. lépp ci samay responsabilité la ne. maanaam daal lu fiy dugg lu fiy génn lu ñu fiy doxal ak lépp c'est pour Ablaye Diop kon bu ñu neexee ñu ne Ablaye Diop mooy DG wu boulangerie Kër Bamba. waaw ci gàttal macha allah. voilà loolu am na solo defe naa kon li may wax chaque jour que rek promoteur yu làmb yi da leen di gis ci làmb ñuy tëgg làmb mais defe naa passion moo leen ciy dugal ak bëgg a jàppale jeunesse su mais wax dëgg yàlla leen ci gën bàyyi mooy jàppale réew mi rek parce ku ci ne ci yéen am na métier parce promoteur yi ma xam yëpp ku ci ne am na ci lu muy yëngatu muy lu am amam solo euh, tey biir làmb tamit parce que balaa ma ñu ci journée bi nga tëgg wala journée yi ngay tëgg dama ci gis sa digganteeg ay nit yoo xam da ngeen di ànd Adama Diouf lim nga ko léegi damay gis ku mel ni ay soxna yu mel ni ñoom Mbayang Fall surtout ñoom Angel ñun ñëpp damay gis sa relation ak ñoom ak ñeneen nit te bisu làmb ak góor production voilà góor production moom tamit fu làmb tëggee ma gis Ablaye Diop mu ñëw jàpp ci nangam sangam lu xew sa digganteeg soxna yooyu sa digganteeg góor production ak yeneen promoteurs yi nekk si làmb relation bi naka la demee. Babacar mooy seet ñi mun a mu boole leen structure sum production boo nee sum production xel yi yëpp dem ci Ablaye Diop mais yàlla xam na ne li ma ci liggéey moo gën a tuuti lépp staff bee koy liggéey mooy ñi nga doon lim nii ku ci mel ni Angel Fall financièrement boo ko nee lii laa soxla du lu muy retiré di banque automatiquement lay dugg néegam ñëkkiti jox la Mbayang Fall wàllu organisation bàyyiwul dara ku ci mel ni Xaar Thiaw ak la cantatrice Mbayang lu waaw. Mbaye ci biir groupe bi la bokk. ñëpp ci staff sum production lañ bokk. wallaahi Babacar. kon looloo waral Ablaye ay bésam macha allah di ala daw di neex. bés bi déggoo li ma la wax Adama Diouf daf koy def yëfu boppam. ak président organisation bi mooy Moussa Senghor. Euh, xam nga lamb ji boo nee sum production man tardivement lay ñëw boo gisee Babacar. mais damay fekk lépp taxaw. boo xesee joxe bés bi. financièrement ak euh, au niveau du CNG et tout ça loolu bàyyee nañ ma ko mais li ci des yëpp ñoo koy jël en charge di leen di nuyu di leen euh, comment dirais-je jaajëfal de passage muy staff sum góor production parce que boo ko xoolee boo ne sum production les mêmes personnes ngay gis nga ne góor production les mêmes personnes ngay gis sama bés ak bésu góor benn lañ macha allah. dimanche nga jëm si wala boog samedi nga jëm si terrain Adrien Senghor wala boog euh, lamb Adrien Senghor nga fas yéene tëgg si lamb lamb jooju boo ñu si dikkalaatee mise bi ñaata la ak ak euh, naka naka lay demee. Babacar làmb jooju ma bëgg koy tuddee lamb promotion muy d'habitude luñ du loon gis boo ne woon euh, mise un million billet bi day yékki may amateur nag avant promoteur ma indi ko rek pour bokk partager ko ak amateurs yi tegal leen un million. billet bi ma wàccee ko ba mille francs nga dem loos 1000 francs nga seetaan. Ablaye lambi mille ak mille francs nga tëgg yow 1 million. 2000 nga toog fu la neex 1000 francs nga seetaan rawatina nag di dund ak mbër yi xam luy seen jafe-jafe dañuy am problème mu déplacement surtout pour dem entraînement ñu jëndaat uskutoor tegal leen ci ne ku jël làmb ji ñoo la may uskutoor bi pour nga mun di def ay déplacement. maanaam da nga teg un million jëlaat scooter teg ci aadama dana ma scooter bi sax mu ngi ci bunt bi nga teg loolu. scooter moom la mburu askan bi di doxantoo instant yi ku ji en dehors du mise ñoo la may scooter bi gratuitement pour looy déplacé woo. mais Ablaye di nga ci génn. Babacar lamb jooju séntuwuma ci xaalis. boo séntuwul xaalis tamit xanaa bëggoo sànn di nga ciy amaat dara parce que boo tegee un million jëlaat te scooter moom ku ne xam na ne yombul surtout bu baax. parce que bu dee bi ma romb la scooter bu bu seer la nga def billet bi 2000 ak 1000 francs est moo tax ma ne est-ce que di nga ci génn. scooter bi Babacar lu ñuy nëbbu sax amu ci 360000 laa ko mil waaw ah, voilà parce que bi scooter Vona la mu ngi nii day doog a wàcc ci conteneur 360000 lañ ko jëndee pour ku jël làmb ji ñoo la ko may ndax dañuy dund ak mbër yi xam lan mooy seen problème. Mm-hmm. Mm-hmm. làmb yooyu bu amateur amee satisfaction. mbër yi am satisfaction pour man gagné naa. leneen lu ci ñëwaati rek bénéfice la. Mhm. sa diggante ak ak Loum. kooku moom sama doomu ndey la sama xarit la sama wóllëre la sama lépp la macha allah muy lu yàgg nag. balaa moo jàll ñu xamal leen ne làmb ji samdi lay doon samedi bii bii bii ñuy dem samedi ginnaaw suba drapo Boubacar Camara. ban Boubacar Camara. Boubacar leader la ci biir Grand Yoff amoon ay yéene rek pour jàppale waa Grand Yoff waaw macha allah. nga nekk Grand Yoff di fi yëngutoo di fi liggéeyee seq waa Grand Yoff jàmm nga nekkoon naa ko delloo njukkal ci bés bi samedi. nii la demee nag Babacar yow dafa mel ni da fekkee toogaay bi. <laughs> wallaay wallaay nii la demee ne Babacar macha allah. Euh, Mbayang Loum moomu dinaa si digga parce que damay gis des fois saa yoo duggee ci làmb wala sa maanaam Abdoulaye Diouf bu nee ci lam kenn gisu ko sax mbayan dina fexe bañ gis ko parce que bu ma déggee mu way la bu tuddee Baye ñas rek foo mënoon nekk da ngay fàq ñëw ñuy ne ziare waa Medina Baye yépp macha allah foofu lañ koy jaaralee rek ziare waa Medina Baye yépp ziare mbokku taalibe yi ak mboolem mbokku jullit e, lum jaga kooku Babacar wax ci moom mot na émission mbayan ndax góor piir a ngi noonu waaw may yàgg di ko bëggee nag Mbayang bëggee naa ko deux ans yoo xamante ne Mbayang ràññeewu ma bañ ko ne kii mooy Ablaye Diop daa jàpp rek te wa bàyyi te ma wax la loo xamul ba fi ma toll nii amul cachet lamb bu ñu mos waxaale ma ak Mbayang te lu ma ko jox mu doy loo ko. lambu samedi bi moo koy woy te joxuma ko avance kay. première lamb ji ma njëkk a tegu woo mbayan pour ñu wax ci mbirum loolu def ma ne déedéet. loo ma jox baax na boo ma joxul ma paasal ñi ma àndal ñu ñibbi xanaa fa la ngor weññoo ko. bii mooy sa ñaata journée ren. Euh, ren bii mooy doon sama deuxième journée. bu njëkk bi loo tegoon. bu njëkk bi 2 millions 500 la woon. bii nga teg 1 million ak scooter. waaw di di waajalaat encore samedi prochain à Ndiédiène Ngale Capassi 500000 francs incha allah. 500000 waaw. ren ñaata journée nga fas yéenee def. suñ jógee Ndiédiène. am nañ programme ñaaxar bu ñu jógee ñaaxar <laughs> bu ñu jógee njéejéng ñu nga ñaaxar bu ñu jógee ñaaxar ñu nga ngeeñaan pour l'instant. Ablaye fi may tëjee mooy balaa ngay tàggatoo Ablaye am na mbër moo xam ne sa waxuma Adama Diouf Adama Diouf yéen ñaar du mbër ak ku muy sob loolu diggante deret la pour man relation xol la yëgante la mais Ablaye est-ce que am na mbër bi nga gënee nekk kii daan nga gis mbër di ko bëgg di ko seetaan. maanaam comprendre ma. mooy mbër moo daan supporté mu muy bëri ci lit avec frappe bi nga gis ko bëgg ko. ci lit avec frappe. Euh, lit avec frappe. kooku nag euh, bu dee benn mbër rek laa war a cité. moo du xarañ loo laa lay jox. moo loolu lu tax. ak loo ko soppe dama ko nawloo lool ci ay jëfam. Hmm. waaw. ñu dem a dem nag ba ci wax gi ñu jóge léegi muy mbay ak luum mu def ci moom jógóoru rëy Babacar te gi defal sa xarit rek defal na la. daa def ci mbayang lu rëy. lu rëy bokk na ci li ma ko gën a nawee. Modou mbayang de ko woy mbayang xamu ko fenn. ni muy def rek mbayang xam nga ne star bu yëngu ci lamb ji mbayan woy na la. ba mu wooyee Modou Modou de ko recevoir dindi mille jox ko. laata mbayan di génn saalu Modou la ma woo téléphone informé ma. deret ba daal di laaj ma jàpp ci. te yàlla rek tax. kon xanaa li mu jëm di ko ca ñaanal xanaa wala noo foo cay taxawee moog Ama. maa ko ciy ñaanal mu am ci ndam lu sedd guy incha allahu rabi. mën naa yomb. ah rafet naa njortu mu yomb. moog Ama uh-huh. looy tàggoo waa Sénégal. Babacar di leen jaajëfal. Uh-huh. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Uh-huh. di gërëm waa Akhla Lamb. mënumaa dugg ba génn nag. te remercier wu ma association des promoteurs de lutte sans frappe bi nga xamante ne man maa ko jiite. Ah, maa maa président bi. foofu lay jaarale itam nuyu suñu kilifa ci lutte simple muy président Mangado su ma fa jógee nuyu président Biran mu yore suñu làmb ji en entier di jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp li leen xamal rek ne Babacar wax nag moo xaw a jafe bu ci njuumte amee rek xëy na Ablaye Diop ba motul bu rafetee rek ndimbalu suñu borom la. Eh, simna o fogole jaa fop jajefala fop gidma fop rawatina koy waa a logala i ngen na in wo gidma nuun o ɓiy nuun o ndokoor nuuno no keke i yo'noxa no jom ne bo mbadiid meeke a ñaana ke na nuun fo a tamta ke na nuun soom a ref i mben ndaf da nuun ngidma nuun nuun fop njajefala nuun ngidma nuun njajefala fop rawatina nag staff bu mag bi muy staff Sumgor Production eh, gidma baajur ke gidma rew waana mi aussi